asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football TV nuyu naa leen bu baax ziar leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokk internet yi te dañuy ñëw wax si euh, Lamine Camara parce que demee nag am na match soog bu xamante ne je pense que Aliou Cissé dina ko bàyyi xel bu baax baax parce que sélectionneur yi itam ñoom ñëpp a yem bu ñu bëggee natt benn joueur dañ koy natt si match yu mag dem demee ce sera contre Marseille déjà que premier journée bi contre elle la on n'a rien vu de Lamine Camara et que man tout le temps man bu ma bëggee natt joueur bu mu ne la ay aay nga prometteur nga am nga temps dañ la war a équipe nationale du Sénégal toj nga fi toj nga fële fi mu lay gën a xaar euh, je pense que ce sera mooy euh, yenn match yi donc boo dee ak benn Lyon boo dee ak benn Paris Saint-Germain boo dee ak benn Rennes xam nga dee nga ak Rennes dafa wane woo dara nga amaat beneen choc contre Marseille je pense que Aliou Cissé mu ngi toog di la xaar parce que mois d'août bi ñi si gis mooy déterminer prochain liste bi donc kii di Lamine Camara dafa am possibilité vu que Nampalys Mendy jusqu'à présent trouvé wul club on sait que euh, Pape Gueye dañ ko suspendre donc li normal pour Lamine Camara mooy la match vendredi bi incha allah mu toj ko parce que bu ko tojul moom ce sera hyper compliqué parce que nga nga déggee nit ki mu nooyu toj je bien kontaan naa si le retardataire moo nekk ne la ci ginnaaw di di Zeyna xam naa moo nekk sama ginnaaw mën nga dugg mën nga avancer te bul ñëw sama vidéo dama toog ne xaar ma euh, ma jeexal sama sama sama vidéo mën nga def benn puufu gars yi donc loolu la xam donc euh, bon damay ñëw wax rek si Lamine Camara parce que Lamine Camara contre Marseille sera très important euh, pour Aliou Cissé comme Deschamps li muy wax Deschamps nee na man sama ay critères am pour natt moo da natt en Ligue des Champions da koy natt si yeneen match yi donc match grand rendez-vous yi bu fekkee par exemple Ligue 1 nga nekk boo dajeeg Paris boo dajeeg Marseille boo dajeeg Lyon Lille ren da lay natt xool yow yaay kan boo Ligue des Champions mu nattaat donc concernant Aliou Cissé par rapport ak ay critères pour yenn joueurs yi xamante ne ba ak euh, ñoo ngi aspiré ñëw équipe nationale du Sénégal pour natt je pense que euh, boo nekkee France par exemple nga dajeeg Paris par exemple nga bëgg a ce sa joueur ndax nekk na benen level bu xamantene yow sax njortoo ko ce sera important de regarder ce match mu ne eh, c'est pas moi Rennes par exemple comme la dernière fois da nga Je natt mu dajeeg Marseille da nga donc amaat a eh, un autre rendez-vous pour montrer à lui c'est c'est bul ma fàtte li ñu ci man si cha si CHAN bi li ma Sénégalais c'est wax loolu moo fi nekk talent bi wax ci man moo mais s'il passe à côté encore une fois même même man damay def ay réserve dama dis que je nga être contre Le Havre contre je ne sais pas moi euh, Reims wala Brest wow nice bravo je nañ la

donc une euh, élimination muy équipe bu marché bu ñoom Iliman Ndiaye ak euh, kii di euh, Ismaël Sarr donc ce sera un match bu xamantane Lamine Camara voilà c'est à lui de montrer à lui si dañ ko war a ou pas si prochaine liste bi xamantane mois de septembre la mbokk li ma vidéo bi dama namoon vidéo yi d'autres ma diinoo mo ma micro mo ñu gënal son mo ma gënal mais jëndal leen ma portable jox ma sama numéro 77 196 05 ou bien ma dugal sama téléphone avoir am na téléphone bu xamante ne daaw ba ren mënul ñëw da ngay ree ba tas xam nga mu ngi ci yor bi daaw ba ren ñëwul donc euh, dama namoon genre vidéo yi parce que c'est plus rapide et que da ngay dugal vite fait en attendant ma def beneen émission ak Zeyna bu xamante ne ce sera avec les micros promis donc lii laa amoon lu may wax si Lamine Camara ci commentaire wax leen ma seen xaar ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal wax leen ba beneen sur Football TV bye bye.